sàmm seen woor ma ci seen i liggéey taskatu xibaar yi dañuy bëgg ñi leen di àtte ci seen i bokk ci liggéey bi la déclaration de Munich di xamle loolu tax ba koret tëral benn tribunal ngir mën a àtte lépp luy dëng teef ci wàllu métier mi gannaaw bi ñu tàbbee bureau bu bees bi tey amal nañ seen cérémonie d'installation. Mesdames, messieurs les membres. waaw di góor di jigéen yéen ñi nga xam ne yéenay membre tribunal de pairs bi. te impression bi nga xam ne moom ngeen dégagé te euh, remarqué naa ko mooy euh, da ngeen war a relever li nga xam ne mooy défi ci wàllum institutionnalisation bi ci wàllum tribunal des pairs. tribunal googu doon li journaliste yi am. ngir mën a segg bi le métier. bilan bu mujj bi. doon li koy firndeel. bañ ko sampee ñetti at lay am ab lañ ko àppal ñetti at yi ñu weesu. Euh, yóbbul nañ leen ñeent fukki affaire yoo xam ne ak benn yoo xam ne càmbar nañ ko jël ci ay dogal donc boo ko méngaleeg tribunal bi mu fi bi mu fi wuutu woon ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo jeexal tey ñu daanaka fukki affaire ak ñaar donc ful nañ ko ñetti yoon. ñu nekk ci contexte électoral ba tax na lii di xaar fukk ak ñaaru juge yu bees yi doon lu rëy. liggéey bi ñuy xaar nag nekk na euh, liggéey bu rëy parce que ñu ngi nekk période pré électorale te liñ ci xam ñi fekk ay élections yu bëree bëri xam nañ ni euh, bëri na lu ciy am mais ñun suñu rôle mooy. ñu fexe ba ñi nga xam ne ay journaliste lañ ñu def tout pour que ñu respecter charte journaliste yi. mu doon kuréel bu ay professionnel des médias ngànk ñu nemmeeku ci juróomi jigéen yu yàgg ci métier mi ñu war a taxaw temb ngir réguler bi le secteur.